ay ca doore kox mu sell mi ci yéen a kaay groupe des médias Ousmane Sonko la neexul benn yoon la koy yot seddul de tribune yéen a kaay nee na Macky Sall lor ñu le patrimoine de Ousmane Sonko déetuwaay maanaam mu nga teg gët laa la wax moomeelam googee te soo moytuwul dana ko nangu réew mi quotidien nee na nangu googee de mu ngi koy dëggal nag waaw waaw garabu fitna ku ko jëmba toog sa taatu garab ga di féexlu dana la jafe wala réew mi quotidien ni kon lii yëpp nag soo amee boo leen bëggee dégg dëgg événement ba gatsa gatsa juin 2023 deuxième loolee nguurug Sénégal takku taxaw ngir nag lijjanti dossier yooyee réew mi ko di mooy wax de nee na juróom-ñaari fan ci weeru août 2023 gii les juges d'instruction dañoo bind benn bataaxal di ca xam ne ni kon faw réparation am maanaam ndàmpaay daal faw réparation am ci yàqu-yàqu ya nga xam ne moo amoon ci événement yooyee sàcc ga caxat-caxatee ga ax la ña sa yàqal nguurug Sénégal ci manifestation yooyee le regard yéene kaay nee na avocat yu état ñoo ko xam le de ñoo ko xam le démb ci point de presse nee nañu l'agent judiciaire de l'état ne kon dañoo constitué wu partie civile takku na nañu taxaw ñoom avocat nguurug Sénégal fas yéene jàkkaarloo Ousmane Sonko mu sell mii waaye it képp ku ca taxe wala ku ca laale ba ci Juan Branco nee na su yee boo a waajal de bu yee boo ngeen waajal Ousmane Sonko ak képp ku ñu jàppee na kon complice nga ca lépp lu mu laaj nguurug Sénégal dana ko def ngir na nga dikk ci géew bi fay maître El Hadj moo ko xam ne de maître El Hadj Diouf si yéenekaay bi nee na yëramtël bi jaru ko deedeelu bi jaru ko wopp wopplu gi jaru ko damaa jabet sama suukar daa yéeg dama am manipulation bi jeex na li dafay dakk l'indépendant yéene kaay nii fay rek gaañ kafu ñu de nguurug Sénégal kaful benn yoon libération nii yéenay kaf kay waaye état du Sénégal kaful benn yoon teg na loxo boo leen bëggee dégg-dëgg usine doole mbër ma ak benn contrôleur impôt Mamadou Diop lay wuyoo ndax nag ci mbirum Juan Branco googee xam ngeen ne Jamil Sène bu Parcelles Assainies moom mi jotoon nañu ko téye génn nañu ko déglu ko ca sûreté urbaine baña sa noppee delluwaat nañu ko sa kaso ba moom maire bu Parcelles Assainies yoon ndax deuxième saison ba gat sa gat sa juin 2023 dama ne troisième saison bay doog a dikk nii nag Vox Populi nee na avocat yu état joxe nañu bandaanoos balaa démb ci kanamu taskatu xibaar yi titre film bangook l'état partie civile contre Sonko Branco et compagnie képp ku ci takk bi yee boo na nga waajal takkal say de bés de lii la xam ne démb ci kanamu taskatu xibaar yi mékkeen tasum xibaar googee démb door nañu ndëpp ma ndëpp national maanaam assise yi l'info yéene kaay nga xam ne moo nekk ci mékkeem tasum xibaar Amadou Ibra Kane si l'info yéene kaay nee na soo leen bëggee dégg dëgg de soo leen bëggee dégg dëgg mécceem xibaar mi bu doon entreprise ñu ne moo ngi ci yoonu fayit déetwaay Bamba Kassé feelu ko ca wet ga nee na ko nañ waxante dëgg nag nañu xoolante si ay bët bañ a ragalante joxoñante baaraam ndax foofu la ñu toll nañu am fit wax jafe-jafe gàllankoor gi ab saan nag si laas yéene kaay nee na ndëpp mi ci presse bi nañu ci waxaale laa la wax situation bi nga xam ne metti na lool ci jeune reporter yi nañu liggéeyee metti ñàkk pexe moo leen si baax sa gis bëgg ko yéene sarax ab sa mooy wax de ab saan ci laas yéene kaay nee na bàyyi leen xel jeune reporter yi nañuy liggéeyee metti na lool ñu sa bari transport la ñuy dundee per diem ndax am ñu salaire ab saan mooy wax ba tey de nee yàgg nañu nag jàmbat yàgg nañu leen wax fëgg ci table nekkoon xool leen gestu leen jeune reporter yi améliorer leen seen i ndax metti na lool nag tar na sa ñoom Moussa Bokar Thiam nee na leen ci grand place yéene kaay moom sunu ministre di sakkan ci ay yéenekaay fii ci réewum Sénégal rek nag jëlal site info yi trois cent la ñu wàññi ñetti téeméer télé yi ñëwagul rajo yi ñëwagul waaye na seen xel daal Moussa Bokar Thiam nee na na seen xel daal l'état du Sénégal prendra toutes les mesures nécessaires pour en œuvre les conclusions des assises lépp lu ñu tënk laaw ci ndëppum national bi faute nationale bi ci presse bi nguuru Sénégal dana jël matukaay yi de ngir daal koy appliquer li ñu war a yoon Bougane Gueye Dany nee na bi nous n'accepterons pas le nga xam ne defee nañ ko nu mu waxee daal bëgg ñu ko imposer ñu ne deete waaye ñu fës kenn jëfandikoo ngir daal di bloqué ay candidat du ko nangu mukk nag bugaan ngay mooy wax de ci yéen kaay groupe des nee na du ko nangu bugaan ngay dani la makiloog noo nee la doon dànxaafoo kon président Macky Sall moo fi waxoon nekkoon soo moytul élection dañu koy dàxaat de dañu koy dàxaat ndax lii ma seen nii président Macky Sall loolu la bëgg moom bugaan ngay deux ans président Macky Sall toogaat le peuple nee na ndax fii ñu toll nii mën nañ fi organiser ay yu tëddee ñaaxanaay lépp aw ci yoon Karim Wade Khalifa Sall ba léegi dañ leen bloqué ci cutus fiscal ñu ne deetewaay Touba nag trois cent électeurs yoo nga xam ne ni soo moytul bi ñu délocaliser bureau ya voté dana leen të wala mu jafe crise ba sa Nigéria nag le peuple ne dama ne ndax rek mën nañ fa organiser ay ndax ay candidat duñu ko nangu parrainage yooyu ci alerte yéene kaay Habib Niang daas na fanaanal de mu ngay anticiper présidentielle 2024 moom Habib Niang tàmbali naa dajal ay signature ay parrainage laa la wax nii moom Habib Niang njiital mouvement ànd suxali Sénégal dalal na démb laa la wax ab bu mouvement Sénégal debout association des charretiers du Cap-Vert ak nag regroupement des chauffeurs et coxeurs croisement Cambérène Dalifort waxtaan nañu de gaa ñi nag nee nañ ko ñoo ngi ca ginnaaw yow rek la ñuy ngi ci wutum signature yi maanaam parrainage yi koo ñu wax rek ñu ne kooku la yaa ca des nee na ko yow daal bëggal rek bëggal rek Habib ñoo ngi ca ginnaaw Habib kon kan lay jàppale signature kan la koy jox parrainage yi kan la koy jox laaj baa ngoog le point actu daal di dikk nee na bataille feutrée entre trois blocs présidentielle 2024 Bokk Yaakaar fu mu nekk ñetti doomi pendanaa bi ñoo koy lëmbee ñii ànd ak Amadou Ba Doudou Ka Abdou Karim Fofana ca biir Pape Malick Ndour Abdoulaye Seydou Sow Cheikh Oumar Anne dama ne Aline Guy la am na de lii rek moo tax na président Macky Sall mënagul wax ani kan mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ndax nag bu weesoo xëccoo gi ci biir waa APR allié yi ci boppam nee nañ président Macky luy jot jot na ginnaaw de ndax parti socialiste kat yëngu na soo moytuwul dinañu fippu de ut seen candidat AFP it yëngu na soo moytuwul dinañ fippi ut seen candidat kon nag nee nañu waa waxal prési tànnal rek war a ñu dem jamono joojee ka demoon def bës jékki ko moo di Idrissa Seck ndaamal Kajoor yéen kay groupe des médias nee ku gis ndaamal kajoor nañu wax réer na mër wala dafa am lu muy waajal xippi seen i gët di xool président Macky ci le point yéene kaay El Hadji mu ngi xam ni kon bu mandaawam jeexee ci Sénégal de Afrique war na koo mën a jëfandikoo nag war naa mën a jëfandikoo président Macky Sall mii ngir mu dox si lu andi jàmm ci réewu Afrique yi ngir lu suqali réewu Afrique yi ndax xam-xam baa ngi fi ndax bàkkee nañu ko ci àdduna bu wërngal këpp na président Macky Sall mii liggéeykat la expérience am diplomatique expérience am ci wàllu politique dama ne personnalité am ci boppam war naa mën a tax nag bu paree ci Sénégal réewu Afrique kar war kaa mën a jëfandikoo nag moom El Hadji Dia ambassadeur itinéraire nee na man maa miser sur le chef de l'État waaw président Macky pour la résolution des conflits en Afrique moom leader politique bu Bambey bi nee na waa du kenn ku président Macky yàlla moo ñu ko wàcceel ci Sénégal réewu Afrique war koo mën a jëfandikoo nag ñu xamee ko noonu li ñu war a xam kay l'observateur nee na l'enquête bi fu mu toll l'enquête um ñaari agent ne dañ leen teg loxo ci mbirum faux billets wu ñaar ci ay li tudd ci mbirum faux billets doy na waar nag doy na waar au commandant bi mu ngay promettre ne dana laa bi l'honneur de ce corps d'élite ndax lii kat gàkk-gàkk la laa la wax ci liggéey bu am jom bu rafet bi nga xam ne ñu leen koy bàkkee fii ci réewum Sénégal ma delluwaat ci l'observateur ki nga xam ne moom moo faat petit fàllu mii xale bi ñu faat ca géejawaay fekk mi nelaw ñu jël yóbbu aj ko sa terrasse ba jam ren di yaa ngi may dégg de yow mi ko def bien boo efe de Balla Gaye 2 dama ne defatul effet ci arène bi le lion de Guédiawaye yu xootul xataraayatul waaw du samay kàddu nag de quatre victoires pour quatre défaites ci diiru fukki at sunu làmb nee na ah loolu moo am bombardier boo ko bombardé Eumeu Sène daal di koy exilé Boy Niang 2 daal di koy corrigé gaynde Guédiawaye gi kon fooratul déedéet kon mu ngoog di tëj si ni kay jàngeen jëf